ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci sunu njàng yi weesu ci linjiil doon nanu gëstu ni borom bi yeesu amale woon lépp li yonent yàlla yi bindoon bu yàgg ci mbirum deewuk almasi bi ak ndekkiteem jàngoon nanu ni yéesu tuure woon deretam ju sell ja ca bant ba ñu ko daajoon ngir fayal doomu aadama yi seen borub bàkkaar gisoon nanu it ni ñu ko wàcce woon ca bant ba tàbbal ko ci bàmmeel waaye ci ñetteelu fan ba yàlla dekkal ko gannaaw ba yéesu dekkee nag feeñu woon na ay taalibeem diirub ñeent fukki fan di leen firndeel ne dëgg la mu ngiy dund te ci njàng mi weesu gisoon nanu ni yéesu tàggoo woon ak ay taalibeem ak ni mu yéege asamaan ci kanamu ay taalibeem yooyu ndax yéen a ngi fàttalikul yeesu mujj sant ay taalibeem laata mu yëkkatiku dem àjjana nanu jàngaat li mu leen waxoon yéesu sant leen ne bu leen sore yerusalem waaye ngeen xaar li baay bi digge woon te ma waxoon leen ko ndaxte yaxya daan na sóob nit ñi ci ndox waaye yéen dees na leen sóob ci xel mu sell mi fii ak ay fan yu néew bu xel mu sell mi ñëwee ci yéen di jot kàttan te nekk samay seede ci dëkki yerusalem ci diwaani yude ak samari yépp ak ba fa àddina yem bi mu waxee loolu te ay taalibeem di ko xool yàlla yéege ko te aw niir jël ko làq ko seeni bët bi muy dem nag te ñu ne jàkk asamaan ñaar ñu sol yu weex daldi ne seef taxaw ci seen wet ñu ne leen yéen waa galile lu tax ngeen taxaw di xool ci asamaan si yeesu male ñu jële ci seen biir yéege ko asamaan dina dellusi ci ni ngeen ko gisee muy dem asamaan noonu la yéesu tàggoo woon ay taalibeem dellu ajana fa mu jóge woon toog ca ndeyjooru aji màgg ji ca kaw te foofu la nekk ba tey di xaar ba keroog muy dellusi ngir àtte àddina ndax dégg ngeen li yeesu santoon ay taalibeem laata muy yéeg asamaan dafa leen santoon ñu toog yerusalem ba ñu sol leen xel mu sel mi naroon a jóge ci kaw xëy na am na kuy laaj kan mooy xel mu sell moomu xel mu sel mi mooy xelum yàlla mooy xel mi doon xiir yonent yi ñuy bind te yégle kàddug yàlla ci jamono yu jëkk ya xel mu sell mi mooy xelum yàlla aji kawe ji wàccoon ca janq bu tudd maryaama ngir mu ëmb te jur doom ju sell ji mooy xel mi nekkoon ci almasi bi yéesu te it xel mu sell mi mooy dimbalekat bi yéesu digoon ay taalibeem bi mu leen naan dinaa ñaan baay bi mu jox leen beneen dimbalekat buy nekk ak yéen ba abadan kooku mooy xelum yàlla mi yor dëgg gi àddina du ko mën a nangu ndaxte àddina gisu ko te xamu ko yéen xam ngeen ko ndaxte mi ngi dëkk ak yéen te dina nekk ci yéen li yeesu digoon taalibeem ci mbirum ñëwug dimbalekat boobu lu amaana lool la ci nun nu dégg ko ndaxte am na ci sunu jamonoy tey ji ñuy bëgg gëmloo nit ñi ne yéesu dafa doon yëgle dikku beneen yonent waaye dimbalekat bi mu dige woon mënula nekk nit sax ndaxte yeesu wax na bu leer ne xel kese la te kenn mënu koo gis te dina dëkk ci taalibe kirist yi ba abadan kan mooy xel mu sell moomu nag mooy xel mi yàlla sol ci xolu ñépp ñi gëmm almasi bi ngir juddulaat leen sellal leen doole leen tàmpe leen ni ay ñoñam te may leen cër ci jataayam bu sell ba faw dinanu gis ni yàlla sottee woon xelam mu sell moomu ci kaw taalibe yéesu yi ca bésu pantekot ba pantekot màggal la woon gu yàlla dénkoon bani israel ci jamonoy yonent yàlla muusa mën nga ko jàng ci tawret ca bés boobu la bani israel daan sante yàlla ndax naataange jamu leen daan may ca ngóobum lorsuma waaye li gën am solo ci màggalu pantekot ga mooy lii pantekot mooy bés bi yàlla tànnoon lu yàgg ngir wàcce xelam mu sell mi ci kaw mbooloom ñi gëm kirist ni màggalu Pentecôte xewe woon juróom fukki fan gannaaw màggalu bésu teggi ba noonu la yàlla dogale woon wàcce xel mu sell mi juróom fukki fan gannaaw ba yeesu deewee te dekki kon nag nanu jëm kanam léegi ci kàddug yàlla ba gis la xewoon gannaaw ba yeesu tàggoo ay taalibeem dellu asamaan mbind mi nee bi loolu amee taalibe yeesu yi jóge ca tund woowa ñuy wax tundu oliw te mu dend ak yerusalem lu tollu ak kilomètre ñu daldi dellu yerusalem bi ñu dikkee ñu yéeg ca néeg ba sut ca taax ma fa ñuy dal ñoo doon piyeer yowaana saak ak andre filip ak toma bartelemi ak macca saak doomu alfe ak simon mi bokkoon ci mbooloo mi ñuy wax ñi farlu ci moom seen réew ak yuda doomu saat ñoom ñépp ñoo bokk menn xel di wéy ci ñaan yàlla ànd ak jigéen ñi ak maryaama ndeyu yéesu ak rakki yeesu yu góor ya bi bési màggale pantekot agsee nag ñoom ñépp booloo nañu ci benn bereb ca saasa riir jollee asamaan mel ni ngelaw lu gaaw te bari doole fees dell kër ga ñu toog te ay làmmiñ yu mel ni safara feeñu leen ñu tasaaraw ci seen biir tong ca kaw kenn ku nekk noonu ñu fees ak xel mu sel mi ñoom ñépp ñu daldi wax yeneeni làkk ni leen xel mu sel mi maye ñu wax ko fekk booba amoon na ay yawut yu daloon yerusalem doon ay nit ñu ragal yàlla te bokk ci xeeti àddina yépp bi nit ñi déggee riir ma nag ñépp dajaloo daldi waaru ci li ñu leen dégg ñuy wax ku nekk sa làkk ñu waaru te yéemu naan gis leen ñiy wax ñépp ndax duñu waa diwaanu galile naka la mën a ame nag ñu di leen dégg kenn ku nekk ci nun ñuy wax ci sa làmmiñ wi nga nàmp ñun ñi ay part waa medi ak waa elam ñun ñi dëkk mesopotami réew yawut yi kapados pont ak asi di waa frisi pamfili misira ak weti libi yi dend ak sira nun ak gan ñi jóge rom yawut yi ak ñi tuub ci yoonu yawut yi waa kret ak araab yi ñun ñépp ñu ngi leen di dégg ñuy yégle yi yàlla ci sunuy làkk noonu ñépp waaru ba jaaxle lool ñuy waxante ci seen biir ne lii lu muy tekki waaye ñenn ñi di leen ñaawal ne waaye ñi dañoo màndi ak biñ ci kaw loolu Pierre taxaw ànd ak fukki ndaw ya ak benn mu wax ci kaw di yëgal mbooloo ma ne mbokk yawit yi ak yéen ñépp ñi dëkk yerusalem déglu leen bu baax te xam lii ma leen di wax nit ñi màndi wuñu ci ni ko fooge ndaxte ñu ngi ci yor yor rekk waaye lii mooy li yàlla waxoon jaarale ko ci yonent yàlla yowel ne yàlla nee na ci bés yu mujj yi dina tuur ci sama xel ci kaw nit ñépp seen xeet wu góor ak wu jigéen dinañu wax ci kàddug yàlla booba nag ku woo borom bi ci aw turam dinga mucc yéen mbokki israel déglu leen wax ji yeesu mi dëkk nasaret nit la woon ku yàlla dëggal ci seen kanam ci kéemaan ay jaloore ak firnde ya yàlla defoon jaare la ko ci moom ci seen biir yéen xam ngeen ko moom nag jébbale nañu ko jaar ci nas bi yàlla dogaloon te xam ko lu jiitu te yéen rey ngeen ko ci daaj ko ci bant jaarale ko ci loxoy bàkkaarkat yi waaye yàlla dekkal na ko daggal ko buumi dee ndaxte dee mënu ko téye yonent yàlla daawuda wax na ci mbiram ne saa su ne gis naa borom bi ci sama kanam gannaaw mu ngi ci sama ndeyjoor kon duma raf moo tax sama xol sedd may woy sama bànneex te it sama yaaram di tëdd ci yaakaar ndaxte doo bàyyi sama ruu ci barsàq te doo seetaan sa waaju sell muy yàqu mbokk mën naa leen wax ci lu wóor ci mbirum maam daawuda ne deena te suul nañu ko bàmmeelam mu ngi ci sunu biir fii tey waaye yonent la woon te xamoon na ne yàlla diggoon na ko ci ngiñ ne dina teg ci nguuram kenn ci askanam kon gis na lu ñëwagul di wax ci mbirum dekkital kirist ne bàyyiwuñu ko ci barsàq te yaramam yàquwul yéesu moomu nag yàlla dekkal na ko nun ñépp seede nañu ko yàlla yéege na ko ak ndeyjooram te jot na ci baay bi xel mu sell mi ñu dige woon ba tuur lii ngeen gis te dégg ko ndaxte du daawudaa yéeg ci asamaan waaye moom ci boppam nee na boroom bi wax na sama boroom toogal ci sama ndeyjoor ba kera may daaneel say noon ci sa kanam na bànn israel gépp xam bu wóor nag ne yéesu moomu ngeen daajoon ci bant yàlla def na ko boroom ak almasi bi bi ko mbooloo ma dégge naqaru xol wu metti jàpp leen ñu daldi ne piyeer ak ndaw ya ca des mbokk yi lu nu wara def piyeer tontu leen ne tuub leen seeni bàkkaar te kenn ku nekk ci yéen ñu sóob ko ci ndox ci turu yéesu kirist noonu yàlla dina leen baal seeni bàkkaar te may leen xel mu sel mi ndaxte li yàlla dige woon yéena ko moom ak seeni doom ak ñu sore ñépp te ñépp ñi yàlla sunu boroom di woo ci moom noonu mu artu leen ak yeneen wax yu bare di leen dénk ne rëcc leen ci niti jamono ju dëng ji amin mbokki déglukat yi ndax dégg ngeen bu baax waare bile ci dënk piyeer a ngi doon yëgal mbooloo moomu nekkoon yerusalem ne yàlla yónneel na leen almasi bi di yéesu ni mu ko dige woon bu yàgg jaarale ko ci ay yonentam waaye yéen xeeb ngeen ko boom ko ci li ngeen ko daaj ci bant waaye yàlla dekkal na ko ñun ñépp seede nanu ko te yàlla yéege na ko ak ndeyjooram te may nanu xel mu sel mi munu digoon rëcc leen nag te wañeeku ci yàlla ndaxte yonent yépp seedal nañu ko ne ñi gëm ci turu almasi bi yéesu yàlla dina leen baal seeni bàkkaar te may leen xel mu sel mi noonu la ndawu kirist pierre doon yëgle xebaar bu baaxu mucc ci kaw ngëm ci yeesu almasi bi bi ko mbooloo ma déggee nag naqar xol wu metti jàpp leen ndaxte ràññee nañu ne yeesum nasaret mi ñu daajoon ci bant mooy boroom ndam li jóge asamaan yeesu mi lañu xeeboon mooy almasi bi yàlla dige woon bu yàgg jaarale ko ci ay yonentam naka noonu bés boobu amoon na ñu bare ñu tuub seeni bàkkaar wàññiku ci yàlla te gëm ci tuuru borom bi yeesu kirist bu ko defee mbind mi nee na ñi nangu ay waxam nag ñu soob leen ci ndox te ca bés booba lu mat limum ñetti junni nit yokku nañu ci ñoom te taalibe yeesu yi fees nañu ak mbég ak xel mu sell mi noonu ci bésu pantekot boobu mbooloom ñi gëm yeesu kirist daldi juddu mbir mi nu dégg tey nag ba mu xeweek léegi am na daanaka ñaari junni at kon xëy na dina am kuy wax naan ah man day loolu du sama mbir man bokkuma ci ñi daaj almasi bi ci bant yawut yi ak waa rom ñoo ko def waaye man sama yoon nekku ci duma ci dugg ndaxte ku wàcc sab ànd ànd boo war mu toj waaye li nu war a xam mooy mbir mi sunu ànd la nun ñépp sunu mbir la sunuy bàkkaar ñoo tax almasi bi gaañu sunuy tooñ ñoo tax yàlla bàyyi nit ñi fitnaal soppeem ba daaj ko sax ci bant te li nu war a fàttaliku mooy lii yéesu mile nit ñi daajoon yàlla dekkal na ko ngir muy musalkatu képp ku ko gëm tey atakatu képp ku ko gëmul moom la mbind mi wax bi mu naan koo mën a doon ak foo mën a nekk yàlla santaane na nga tuub say bàkkaar ndaxte sàkk na bés bu muy àtte àddina ci njub dénk ko nit ki mu tànn te firndeel na loolu bu wóor ci limu ko dekkal ca néew ya xalaatal bu baax ci wax ji ndaxte yàlla bëgg na leeral sa xel ci lépp nu ngi lay gërëm ci déglu bi soo bëggee am téere bu yaatal sa xam-xam ci xibaar bu baaxu yàlla bi nga dégg tey bind nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li ndawu Christ Pierre waare woon bi mu naan réccu leen nag te wàññeeku ci yàlla ndaxte yonent yépp seedeel nañu ko ne ñi gëm turu almasi bi yeesu yàlla dina leen baal seeni bàkkaar te may leen xel mu sell mi